bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala nabiil karim sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa asaabihi wa xadimihi sawi ridwaani wa tamkin rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul xoqdatan min lisaani yafqahu xawli mbokki jullit yi mbokk taalibe yi gannaaw ba ñu leen nuyoo noo ngi amaan mbégte àndaat ak yéen di leen siyaare te di leen balu xaq ci weeru tedd wi ki leen di defal waxtaan wi nag mooy Moustapha Gueye indicatifu Seexul Xadim di taalibe Sëriñ Abdullah Mbàkke moom Sëriñ Moustapha Massamba radiyallahu taala anhu tey soppeeb Sëriñ Mbàkke ma maam soxna la jóg Taif radiyallahu taala anhuma tey ànd ak Sëriñ Muntaxa ci liggéey Sëriñ Tuubaa saa su nekk te di ko ñaanal mu yàgg fi te lool tey roy Cheikh Abdoul Ahad ci dëgg xanaa amaat yéene rek ñëwaat ci benn tomb fàttale boo xam ne jaadu nañu am ci taxaw seetlu waxtaan ci ku ne bàyyi ci xel ndax ku ne man cee corriger sa bopp ndax ab seetu la boobu boo jàkkaarloo moom rek danga xam na nga ca mel te yooyu dafa bokkoon ci la taxoon sëñ Touba daan tomb di ko jàngale ca njéeréem bind ko ci xasida yit daan ko ñoom am ñu ko ñu ko daan waxtaanee la te loola buñ ko bàyyee mu jàll wala ko taxoon a jóg duutu ko tax a jóg rek wala gisatuñ ko rek musiba dana am ci ñun. looloo tax sëñ tubaa doon wax maam Thierno naan ko la doon bañ day am na ndax gis naa yàlla yorub yar waaxu wuti ci jaam yi te loolaa doon bañ te loola la tax mu amit mooy ndigal yi nga xam ne sëñ bi da koo digle woon ba noppi nit ñi xëy ko gannaaw fent yu bees yoo xam ne bokku bokku teg li loolu yi sëñ bi digle woon ba noppi ñuy tuddoo sëñ bi ba pare mbooloo topp leen ci loolaa taxit mu daan wax sëñ Maxtaar bintaloo naan ko xam nga màmma sëñ Maxtaar ne ko boo ñu ci dimbalee ñu jël mu ne ko màmma day weesuwul mbooloo mu fàq am ku leen jiite ñu daw dëgg ma yoonu sawara taxawuñ ña ngay daw te danañ àgg te ñooñee nee nañ maay seen sëriñ kon jamono jii ñu toll sëñ bi gisoon na ko waaye ku gis nii nga xam ne ni la yoonu murit bi di doxee ku ci am xel mu dal day ma xam ne yëgoo li xew moo nga tëdd ci sam néeg kër gi di lakk ba wër kër gi kapp te ak seegul ci néeg bi soo ko yëgee te jéemoo jóg défensé wu yëgoo li xew ndax yàlla moom lépp lu mu wax dana am te amul ku mën a dox ci digganteem ak loolu yi mu bëgg ci jaam bi ndax mooy borom jaam yi ku yaakaar ne nag mën nga am benn intermédiaire boo xam ne nii ëllëg lu yàlla diggee mën nga am ko dox sa diggante moom lu weesu liñ la digal kuy jàppub daf say ba mu jàpp la moo tax sëñ Tuubaa daana ko junj lu bari ci junjëb yooyu jaamu ji leen yàlla te bàyyi dof gi xam ngeen lan moo di ak dafa ñu ne tekk mu ne ñaari nit ñu seq mbir kenn ka nekk ca naajo wa di dang dangi ngir boppam kenn ka ne ca kerka di xaar ka ca naajoo defe ne la ka ca naaj wala muy liggéey xaj na ci loolu day xamul ne kay liggéey ca naajoo boppam a ko tax a jóg loolu nag dal na ma sama diggante ak yéen ñi sama barke bii ngeen di tuddak sama coow seen coow lu bari lii sama bopp a tax te doyu ëllëg yow mal xiyaam nag na ngeen xam ne képp koo xam ne yaakaar nga ma te topp woon ci li ma la digal jaar cim diir da am lu la naqari te dooma fa gis de lii ñu naan sëñ Tuubaa nee na boo faatoo ñu teg la ci loxol sëñ Tuubaa wala ma fekk la ci bàmmeel diggewuma ko kenn man du ma fekk kenn ci biir bàmmeel yàlla nag dana ma am fu ma ber fa képp ku ma fa fekk ma ngaa tegoon ci jub bokk yi xool leen lii ñu dugal ci yoon wi ba nga xam ne nuru na ci la bokk ba gone yi mujj judd yëpp fi lañ ko fekk muy mag muy njëstal te xam ne day njëstal te nëbbu ko jomb ko nga xam ne loxoom ndey joor bi di waaj a def waxuma la mu def ko rek loxoom càmmoñ bi yëg na ko dem ba làggi nag ci jikko ji ba lépp lu mu def ci asruq balaa bàyyi da ko siiwal ba ñëpp yëg ko léegi lay sax ndeysaan nga gis koo xam ne ci biir njësal ki day woo koo xam ne si wóor na ko ne kii bu ko waxee dana ko yëg ne ko man ak yow yàlla la di ak naan ko dimbali ma bu ko kenn yëg su ko defee kooka ne ko mënuma ko ñàkk bañ a wax wala mu dem wax ko kenn kooka wax ko bu ëllëgee xabaar ba senn loola dem na ba ci addiya ji ngay jox sa sëriñ sax bu la yàlla mayee sa loxo jot sa gannaaw booy joxe sax doo mën a raaxaloog taalibe yi joxe ndoo ko ndax da bëgg a wéet ci joxe ga ba nit ñi xam ne yow mii li ngay joxe bukk rek li ñuy joxe defe na loolaay jariñ nag ci àllaaxira wala loolaay jariñ sa digg sëriñ Tuubaa sëriñ bi wootewul woon alal woote woon alal sax ku ci ëppale wala nga mën ca nga yaakaar ñu mën a jàpp ne kooka euh, loolaa tax waaye alal moom sëñ bi da koo taxul woon a jóg moo tax mu daan wax naan lu ngeen def lu dul ak jub bu ëllëgee kuy taxaw di sawa leen ko ëppale te loola yanu na lu wér la nag ndax alal moom ñëpp ko mën a am waaye ak jub moom ay jullit jullit yu gëm yàlla te yàllaa ko mën a am ak jub moom ñëpp duñ ko mën a am moom waaye alal moom ñëpp a ko mën a am léegi nag loo xam ne si buñ la ca tuddee tudd ca ku gëmul yàlla tudd ca ku gëmul Seydina Muhammad boo ko laqatoo ci sëñ Tuubaa it na nga xam ne ab dafa dëggantaan nga waaye loola moom addina bii la yam te ba léegi des na la ko xisaab des na la ko xeqab àgg nañ ci ba daayira sax dangay ngay gis ndeysaan ñu di ko jébbale nga gis ñu bind ko def ko ay not waa kër sàngam yóbbant yóbbu nañ nangami million suba la ñuy siyaare génnee ko ci internet bi génnee publication bi fa ñu yébbalee da ngay gis ku taxaw ne nangam lañ jébbale waaye xeeb nañ ko nga dégg ñuy yëkkati seen kàddu ëskay murit saadeex ñoo ñooñu ay murit saadeex te moo ne am na ñoo xam ne si jébbale nañ te kenn yëgu ko te ñooñee day xëy na bu fekkee jàpp nañ ne kuñ jébbale alal ñu defee ne murit saadeex nga dana yokkat loo gaa yu bari bu ëllëgee moo tax nit ki di dugg ci musiba bu nekk ngir bëgg am alal ndax bëgg boole ñu ndax bëgg ñu classé ko ci ña nga xam ne boo léegi ñoom la ñuy tudd Sëriñ Tuubaa bi muy ñëw ci kaw suuf bi ci mission bi laata muy ñëw fekk foofu la fekkoon alxuraan ji ñuy jàng ni di ko jàng ñu daan def ay at di ko jàng di ca sonn su ko jàngee ba man ko nag dafa daan wër di def ay diiwaan ak barab bu nekk mu di fa dem lu mu fa am jënd caw fas wala mu jënd caw nag ngir bu bëggee soxna bañ laaj ko ca yooya mu yëkkati loola joxe te loola ci njàng ma lañ ko mënoon a am sëñ bi nag na loolu taxul njàng jóg moo tax mu daan dajale jàngalekati alxuraan yi kenn ku nekk la nga xam ne mooy sa yitte mu yëkkati ko daan la ko jox daan ko daan la ko jox moo tax lu waaye di def rek nay doon ngir yàlla léegi nag àgg nañ ci nit ki bu ñëwoon sa kër sax woo la ci broq ne la dama am yitte nangam bu la wóoree ne nit ñi duñ ko ko yëg rek nga gàntal ko waaye bu la wóoree ne waxkat nga ko jox boo xam si bu subaa nga dégg ko ca rajo ya wala nga dégg ko ci cérémonie ya nga yëkkati ko jox ko su ko defee buy wax jiital ci saw tur buy wax ba tudd la sax mu naqari la waaye bu la wóoree ne kii moom sa diggal yàlla képp la nga gàntal ko da nga ciy tàyyal sax doo ci sawar léegi méthode boobu nit ñi àgg nañ ci ba nga xamante ni si fi ne jëf joo baree bare ju nit waroon a am ab tiyaaba jëf jooju yàq na ko muy njësal njëstal nag sëñ Touba bëgg ko woon de ak ko bañoon sëñ Touba dafa bañoon njëstal a bañ njëstal a bañ njëstal ba lépp looy wax ba dugal ci njëstal dana la corrigé bala nga faa jóge lépp looy wax ndax bi ne gis nga nit tax léeg-léeg ndeysaan mu am alal ak nu mu ko amee rek moom yoonam nekku ci waaye bu fekkee ni mu ko amee baaxul sax danaan su ma ci joxee sama sëriñ addiya rek alal yi baax na yàlla waxu ko kenn de Seydina Muhammad jottaliwu ko kenn sëñ tubaa mi ñu toppit waxu ko kenn su ko defee nag oto boobee nga yëkkati jënde ko lu bari ceeb xaalis moo xam 60 millions la wala nga jënde ko 100 millions dikk jox ko sëñ bi sëñ Saliou Mbacke defal def nañ ko lu mel noonu ba tàyyi nga defee ne oto bi boo ñëwee boo ko joxee da ko war a def forcément rek mu di ko war am na taylu bi yu àgg ci lool su ko defee nga gis ñoon ah diw day juróom benn fukki million oto bi jar juróom benn fukki million moom la jox xalifa général de Mouride wala moom la jox nangam te moo ne juróom benn fukki million yooyee oto ba di ko jar wala cent millions yi ak ka xajoon ci doomu aadama yi nga xamante ne si yàlla dala cee diggal sarax diggal la ci dimbalante ci fànn yëpp te nit ñi soxla nañ ko te xalifa ba nga koy jox yitte woowu ko waaye aw tur nga ca bëgg rek ak li nga xam ne yaa ngi koy dajale te laabul nga defee ne loola man na ko laabal loola nag mooy jéem a nax sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa moom wax na lu leer loo nite nite mënoo maa nax mooy loo muus muus mënu ma nax waaye loo dof dof du ma la nax gistal googu du alal dong am na ko mbooloo mu toog dafay bëgg a ràññee ko jaral na ko mujj ñëw sax ndax bëgg ba ñëpp toog mu ñëw dugg ci seen biir ne xam ne kii mooy diw la moo xam borom xam-xam ba la moo xam borom alal ja la moo xam kilifa la moo xam daal cër bu mën a amee loolu nag da nga ciy sonn. tooñ ci sëñ tubaa te doo ci joteeg sëñ tubaa dara te doo ci am fay ak suñ borom ndax ëllëg da nga gis ko suñ borom teg ay jëfam bari lool mu naagu mu ne ko lii de yaa ko jëf mu ne ko waaw mu ne ko waaw waaye nag yow sag fay lekk nga ko ba noppi ndax nit ñee taxoon nga di ko def waaye comme nit ñee taxoon nga di ko def nag te nit ñi moom yàlla dogal na moom ñu laa fay la nga ca bëggoon am am am nga ko yëg nañ ko fii nag amoo fi dara ndax taxuma woon kon lu waaye di def na yàlla tax te ñu koy def fañ koy war def te def googee ñu koy defit ñu bañ cee wut aw tagg bañ cee wut ku lay aw ŋàññ ndax buñ la ci taggee nga sant buñ la ci ŋàññee mu naqari la loola day du màndargay jullit loola du màndargay jullit kon nan wàññi njësal gi ndax as gor ñëw làqatu ñëw ak néew dooleem gis ak yow ca pet ci ab roq ngay ab taalibe muy ab taalibe taalibe dafa am ay critères yu ci nekk yi ci sëñ Tuubaa jàngale mooy lu ngeen am na ngeen ko bokk te yàlla tax dimbalante te yàlla tax loolu boo xoolee sëñ Cheikh Mbacke mi taxawal day la sax moom wàllu social boobu la ci jëkk dugal bu ñu reyoon ca saaba yi saaba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nopp la saaba yi bu ñu mosaan gis ku néew doole tollu diggante da nga gis ku yàlla may loxoom jot loxoom loxoom jot gannaawam comme niñ koy waxee dem dajale mboolem li nga xam ne si jëmm jooju soxla na ko mu tëdd ba guddi mu waaj waajtaay wu jekk dem ba ca buntu këram mu tegal ko ko foofa xam si bu yeewoo dana ci yem wala bu génnee teg ceeb leetar ne ko yow yaa ko moom jaar ci turu kooka te moom mi ngi ko joxe lu jox euh, leetar bi nga xam ne mooy retour loola mooy dimbali ngir yàlla waaye dimbali gi léegi. am na ci yooñ wala nga leen ko def dañ naan la danga koy koy yëgle ba ñëpp yëg ko ne maa ngi lay waaj a dimbali su ko defee loolu mooy waral rang bu bari ak waxtu jot ngay jël ay audience yi dem ci kër nit di toog te fokk nga toroxal sa bopp mu yëkkati ko jox la télévision ngi ci sawet wala télé téléphone portable yi wala caméra bala ngaa àgg sa kër da ko fekk ci benn sit internet mu reprendre ko ko defee ñu ne kii de demoon na kër diw wala dem na kër sëñ diw wala dem na kër commerçant nangam jox na ko fa nangami million su ko defee mën na koo bañ a mat sax ñu jaxase la ak say bokk wala nga agsi ci kër gi ñu ne ah, sama wàll yow ko dégg naa jox nañ la nangam ngay ñàkk ak ñëpp loolu yi nag mooy tax nit ñi yokkatu ci liggéey te liggéey dafa bokk ci priorité. nit ki di ko def waaye fi ne bu ngeen xooloon suñu dëkk bi di Touba fi ne ku am gis-gis rek demal nga dem visite yaa xam nga yor oto wala nga yor welo wala nga yor moto wala nga yor loo xam wëral quartier yi ba mu daj foo gis baas bu ñu baas def cérémonie officielle moo xam màggal la wala fu nit ñi di dajaloo ay kilifa di fa ñëw moo xam kilifay diine wala kilifay aada da nga gis mbooloo moo xam ne si dañoo waroon na nekk ci barab di fa daan seen doole moo xam nañ ko mën a amee nag da ci marché yi jaay wala ñu yor seen place di jaay wala ñuy def benn acte boo xam ne rek day wane na ñoom ña ngi koy def rek ngir bëgg a dund loolu lépp dañ koy bàndoone bàyyi dajaloo fa nekk groupe fees baas bi seen yitte du lu dul ku ne bëreet ñu jóg taxaw tàllal loxo di la tagg ka tagg ak woyaan ba dañuy xeex ci seen biir ak a xudoo ci seen biir yow miy joxe it bala ngaa am jàmm rek gis groupe gu mel noonu ñuy tàmbale ci say maam di la tagg yaay setu diw yaay setu nangam ak nangam waaw di la wax loo xam si wóor na leen ne yow mi ñu koy wax nga xam nga ne gëmoon a nekk ndu yekkul ci waaye nit ñi ngi koy dégg rek moo tax nga làmb ab ambulan jox leen loolee dugal nga leen ci yokkat ndax su loola la ñuy jógee fu ñu jógee dem feneen ak di dugg ci kër yi nga xam ne bu bu cérémonie officielle amul wala lu mel ne ndaje mu ñuy dajaloo ñoom duñ dund duñ lekk moo tax ñuy wax lu ñu wërta wax di def lu ñu wërta def di jay nit di jaxase ak bokk te loolu gis nañ ne bari na ci murit gi lool te loolu bokkul woon ak li taxoon Serigne Touba ñëw di yeesal sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Serigne Touba bi ñëwee ay jikko la doon dugal ci nit ñi am njàng ab yar ay tomb ak ab liggéey ak yooyu yëpp nga xam ne nit ki mën naa jariñ boppam. te lu sukki buntu boobu moom fenn te loolu mooy sàmm gor waaye nit bu dul gor rek lislaam moom day des moo tax maam Thierno daana wax ne yàlla da bu ma joxoon ñaar tegal ma ko ne ma ñaar yii de benn ngi ci jël du ma la joxandoo ñaar yi muy yàlla muy lislaam bopp ak ngor nee na ma tànn ngor ga ndax boo tànnee lislaam bàyyi fa ngor ga lislaam ji du rafet te lislaam ji rafet mi ngi ci nga am ngor soo amul ngor dara du sotti mi ngi mel ne nit kuy dox te amutum xol rek xam nga xol moom mooy giide nit ki ba nit ki nekk nit nit nag bu ñu nee paccat ab xolam génnee ko ci moom day dee day dee kon c'est très important ñuy bàyyi xel ngor di ko sàmm ndax ngor boo ko sàmmee rek sa diine rafet ngor boo ko sàmmee da nga nangoo liggéey ndax ku kuy kuy sàmm ngor doo bëgg mukk nekk ak mbaari njënd goo xam ne si wala nga nekk koo xam ne si ak dag ngay doon kook nit ki da lay utiliser def la jaam nga nangu ko di la jox lu ne waaye noo mën a tedde rek te yow nga mën a ko sukki say bunt woom rek loolu moom jomboo ko ab murit nag daa war a jomb ab murit daa war a daa war a jomb waaye wërta ragal wërta rus ndax murit bu ragalee lam ragalul bis bu ko gisul def lañ koy tere murit bu rusee lam rusul bis bu ko gisee def nañ ko tere murit nag jomb wéet ak wéetul ko ci bokk yam kon nañ leen di gore nañuy dimbulee te yàlla tax kenn ku ne de xam nga ka nga war a dimbali bàyyi puukare wu bi alal ji du dara ku feebar tàggook moom ku handicapé tàggoog moom ku dugg kaso tàggoog moom ku dem bàmmeel tàggoog moom ñeneen a koy utiliser te du la jëriñ loo ci deful woon ci lu baax tuuti la jariñ te nit ñaa ngi nag waru waru bu métte métte métte te loo wax ñu tudd sëñ tubaa te sëñ tubaa mi ñu tuddee ak am ful la tubaa de mën ngaa wax lu la neex def lu la neex waaye la muy wax wax na ko lam siñe ak suñ borom siñe na ko te du ko dee siñe mukk te ca ab raay la tegu moom boo wàccee raay bi jëru ñal la nag yàgg yàgg boo doxaatee da ngaa yéeg ci kaw raay bi waaye sëñ bi moom wëccatu raay moom te raay moom ñëpp xam nañ ne saxaar ci la mën a daw waaye mënut daw ci leneen kon nañ bàyyi njëstal nañuy bàyyi jëf nit jox nit dara ba noppi bëgg mu di ko siiwal nañ bàyyi yëpp fekk fu ñu war a def ñu lànk xañ ko foofa dem di ko def fu matut def di ci wut awtur ak defe ne it aku màgg ak karaama ak ngërëmal yàlla ci ay col la nekk wala ci comme yii ma leen waxoon nekkul ci yooyu benn istil muriidu laa yuridu abada xayra rida rahmaani ay sa xasada loolu la sëñ Tuubaa bind nit ñi nag lu coow li bari bari bari bari ba ñu baale la ci loo xam ne nii riir doo nga ci yóbbu bàmmeel kuñ ci dugal yow da nga yaa cay nekk yaa fay wéet yaa fay wax ak suñ borom sëy jëfit moo la fay jariñ loolu loolu du la fa jariñ kon mbooloo mu bari mi amul solo ndax buñ deewandoo nit kenn du bokk ak sa borom bàmmeel te àndandoo gi amul njariñ kon nag lii point la boo xam ne si jaadu na ku ñu toll di ko waxtaane yërëmante it baax na am na solo ci biir mi ngi noonu yërëmante mooy kenn ku nekk xam ne li la bëggoo loo xam ne si lu metti dal la kon bu dalee sa moroomam jullit bul xool bokk ga ngeen bokk gudul bokk jullit ga waaye danga gis kooku mën naa mu nit ci mbedd mi muy kadd kadd daanu mu yor sa gudul jeex xoole ko ne kii kat du sama mbokkum deret wala ndàngam wala jàpp na ne bu ca defee alal kenn du ko yëg jaamu yàlla googu ni mu amee njariñ defal nit te yàlla tax téye saw làmmiñ sama maam dafa daan wax naan boo wàññiku woon tey sarax nit dara mu jox nga jox ko ko ba mu téye ko mu jël yat ba mu yoroon dóor la ko ci sa gannaaw nga wàññi ko ne ko delloo ma sama sarax xamal na yàlla taxul woon sëñ Muntaxa nee na fi ne nii lépp lu ma jox nit lépp lu waay jox nit rek nga xool xollam xam la bu sol rek nee na loola yàlla du ko nangu maanaam yëkkati dara jox ko nit rek xool xam bu mam sol wala nam toll ci dimension nee na loola yàlla taxatul te bat ñu ci baree baree baree fi ne ku ñu jox bu ëllëgee boo leen romboon dong gisoo leen ñu ne gis nga ko de ku ñàkk jom a ngi nii baatal la baat yu ñaaw ndax démb maa ko fi def nangam maa ko fi def nangam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf